aca combat soog diggante Isani Djirnda ak Yamou Dakar eh la ilaha illallah Yamou Dakar ramasse na Isani Yamou Dakar ramasse na Isani de Yamou Dakar Yamou Dakar mi ramasse na Isani de Dakar compté ko ñett